bonjour euh, chers téléspectateurs xam ngeen heure bi mooy heure bu baax bi euh, min ngeen ko li xew ci biir internet bi jaajëfal leen yéen internet yeeg téléspectateurs yi encore une fois nuyu leen tey la jeudi premier juillet ci atum 2021 mu nekk euh, bis bu am solo xam naa ni ñiy liggéey ku yeeg yooyu gis naa ci réseaux sociaux yi ku nekk di wane ni voilà weer bi fi mu gaaw na war na gaaw dee quoi ñu ngi ko doon wax ci mois de juin bi mais léegi alhamdulilah ñu ngi ci le premier xam naa du yàgg dara ñu commencé kaas comme ni ñu koy defee ci statut WhatsApp yeeg Facebook Twitter wala Instagram jaajëfal leen jaajëfal euh, équipe digitale bi nekk ci ginnaaw di jàpp ci liggéey bi ba tax ngeen ñuy mën a jot en temps réel ci suñu plateforme yëpp. rawatina seen ay euh, commentaire ñu koy jot en temps réel aussi di ko mën a partager ci émission bi comme ni ñu koy defee rubrique question yi mi ngi ñëw ci kanam euh, dinañ ñëw mais surtout comme ni ñu choisiroon démb kenn yóbbu ko ci jili CSB euh, moom mi question yi nga xamante ni dañ ko fiy posé d'habitude lu ci ëpp nag ay question yi nga xam ne internautes yee koy posé mais tey am na benn laaj bi nga xamante ni vraiment benn kilifa la indil ñu image bu yàgg ci Ndakaaru nañ ci ñëw ci kanam tuuti mais dañuy njëkkee ak xibaar bi nga xamante ni aussi toujours semaine bu nekk waxtaanee ko sénégalais bi nga xamante ni mooy def buzz di continuer di def buzz te yàlla na euh, gën a law gën a wéy euh, moom xabi laam xaban laam mais ñoom tubaab yee xabi laam lañ koy wax xabi laym wala laam Euh, am quatre-vingts millions de personnes yoo xamante ni ñoo koy suivre ci euh, réseau sociaux yi bokk ci ñi gën a influent ci àddina wërngal këpp euh, teg nañu koppar gi nga xam ne gañe ko ci diggante weer wi nga xam ne moom la ñu génn mooy diggante mois de juin bi wax nañ ko vingt-cinq mille euros ci ay poste boo ko calculer ci je pense CFA mën na toll ak un million quelque moom euh, Khaby Lame ci poste boo xamante ni euh, da ciy am ak euh, lii nga xamante ni fond bu créateur bi di TikTok moo ko koy jagleel ay koppar la yu média yëpp di partagé moom Khaby Lame wax nañ ko fii ñëwoon nañ fi semaine dernière ne dem am na ci léegi ci situation bi mu toll ay dem diggante dem États-Unis ak yenn plateforme yu mag yi ci mel ni ay Netflix di ko côtoyer ngir mu jouer leen ay film li ko waral nag moom particularité mooy du wax patt lay def di def ay gestam moo tax àddina wërngal këpp di comprendre loolu bokk na ci atom bi nga xamante ni indi na ko ci lu yees ci eh, réseau social bii di TikTok mais surtout ci yeneen plateforme yi moom xabilaam leneen star ci réseaux sociaux yi dafa yomb nag fi mu ne nii mën nañ euh, mu ni mbaa comme ni ñu koy waxee mbirum làcc rek nga nekk star bu mag a mag grâce aux réseaux sociaux comme ci euro bi gis nañu euh, supporter bii di Luka moom supporter suisse bi émotion bu ne dund na ko keroog ci match France euh, Suisse bi euh, partagé nañ ko ci réseau sociaux yi ba yenn yi nga xam ne ay sponsor lañu ci euh, euro bi jël nañ ko daal di koy jox ay vacances ñenn ñi joxal ko ay cadeaux moom Lucas ñëpp di ko interviewé fi mu ne nii star bu mag la diggante Suisse ak France ak partout dans le monde ndax émotion yi nga xamante ni médias yi partagé nañ ko ba ci réseau sociaux yi aussi ñëpp daal nañ koy partagé am na ay cadeaux nag gis nga ko gis nañ ñooy fi nii am na sax place ca final ba euh, ak euh, match yi nga xamante ni même bu fekkoon programme woon pour dem fa fi ne nii. am na ay cadeau yi ñu ko jox yenn ci sponsor yi la yenn ci yenn euh, agence de tourisme yi nga xamante ne dañ ko def ngir gën a wéyal seen communication mais surtout ak euh, tollé bi nga xam ne def na ko ci euh, réseaux sociaux yi réseaux sociaux moo ni mel nag moo tax parfois ay action yu am solo temps yëpp ñi ngi doon wane action citoyenne yi nga xamante ne suñu sportif yi ñu ngi koy def mais tamit sénégalais yi bu leen ko bàyyi yéen ay baaxoo ngeen ci émission bi aussi di ñu partager seen ay action citoyenne yi nga xam ne yéen a koy def ci seen koñ yi ci nawet beeg ñi nga xamante ne ñu jël ay initiative yu am solo di ko partagé boo leen defee photo def hashtag sunu net dañ ko gis dañ ko daal di partagé comme nii nga xam ni yenn ci yenn quartier yi def nañ ko euh, ngir gën a mën a ñoŋalaat seen quartier mais surtout xoolaat ni ñuy def waajalee nawet bi loolu nekk na lu am solo am na euh, yeneen initiative yoo xam ne ay ndaw ñu ko jël ku ci mel ni plateforme bii di Sénégal écologie moom euh, conseil yi ñu joxe mooy exemple bu baax la ngir voilà comme ni ngeen gis nii yii exemple bu pour éviter inondation yi mais surtout euh, mettre déchets yi nga xamante ni parfois euh, duñ koy remettre à leur place seen euh, projet bi lii lu am solo la dina tax segg yenn yi nga xamante ni eh, day dugg ci égout yeeg parfois fatt yi nga xamante ni parfois day jur ay inondation tax ma ne ndox mi du dem initiative bu baax la waa Sénégal écologie di leen jaajëfal lii lu am solo la waaye am na ko commenté ne eh, bu ko fa ñi nga xamante ni ñooy ferraille yi fekk ndax bu ñu ko fekkee dañuy jël mais pourquoi loolu tamit war nañ ci gën a mën a wax tamit ferraille yi vraiment parfois li ñuy yàq moo ëpp fuuf li ñuy defar loolu tamit bokk na ci li ñu war a waxtaanee ci internet beeg euh, réseau sociaux yi. am na solo question yi euh, ñu ngi ci ma xool euh, ñu ngi suivre ci suñu plateforme Facebook live d'habitude man ma Facebook live laa ëpp lu may lu may nekk te pourtant waa Instagram live ñi ngi fi YouTube live ñu ngi gis commentaire yëpp gis nga. internet yaa ngi commentaire ma xool euh, li ñu fi bàyyi woon comme question am na image cachée bu ñu fi bàyyi woon démb ñëpp ngi commentaire mais bari na nag ñu ko trouvé quand même maam Matar Gueye mi nga xam ne moo jiite Jamra ONG Jamra euh, gis nga ko à chaque fois ci actualité yi da ci génn di ci am taxawaay bu am solo moom Mame Matar Gueye gis nga ko aussi bokkoon na ci émission bi am na benn vidéo bu ñu mës a defar ngir gën a leeral sénégalais yi ci yenn question yi nga xam toujours day concerné waa Jamra ak situation fi réew mi toll am na ñoo xam ne dressé nañ ba def CVM ci question bi gis nañ internet yi seen réaction yëpp gis nañ ko image bii la ñu nëbboon démb ci émission bi la bokk d'habitude dañ ciy choisir kenn yóbbu ko ci jili CSB ma nga nekk rond point cité kër góor gi moom mooy sponsorisé euh, ñu duppee question yeeg image cachée yi jili moom mooy sponsorisé euh, rubrique bi moom ma nga nekk euh, rond point cité góor gi jili CSB d'habitude dañuy choisir kenn yóbbu ko foofu mu jël téléphone portable am yu mucc ayib moom jili di ko jaajëfal Euh, am na beneen question bu ñu fi bàyyi woon démb balaa ñëw ñëwaat ci image cachée bu tay bi bu tay bi tey day xaw a saf parce que am ngeen euh, jeudi vendredi samedi dimanche voilà question baa ngi nii bii nag dafa dafa compliqué ah bi xaw na jaaxal gars de quel mot ou expression se cache derrière cette image bii dafa mel dafa dafa dafa parce que gars yi sawaruñ ci sax pourtant di sax moom la ñuy ci ku ko trouver la ñuy choisir yóbbu ko ci jili CSP loolu la ma euh, Adja madame wax léegi nii ñoom ñooy gérer ñi nga xam ne lañuy ñuy tànn di leen yóbbu ci euh, fi ñuy jëlee seen téléphone portable loolu yëpp pour montrer que ni émission bi soxal na leen ñu nag yéen far ci émission bi moo tax ñu duppe leen yéen ngeen duppe ñu heure bu baax bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram mi ngi noonu wax leen joxe leen seen réponse maa ngi xaar commentaire yi waa Facebook live maa ngi gis seen commentaire ñu ngi nii maa ngi jàkkaarloog yéen <laughs> maa ngi jàkkaarloog yéen di suivre di suivre sama bopp en même temps gis nga léegi téléphone ci poche comme télé ci poche maa ngi jàkkaarloog yéen di wax ak yéen yéen tamit yéen a ngi wax ak man c'est interactif moo tax question yeeg ni ngeen di participer ci émission bi yëpp dama koy bi bi fi bàyyi. Euh, Bambali Mansa réalisateur connecté mu ànd ak Mame Galla voilà kan moo nekk ci ginnaaw image bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram jaajëfal euh, toos mag <laughs> tonton mag émission bi dafa bari ay gars yi ci jàpp de directeur technique di ko jaajëfal kan moo nekk ci ginnaaw image bi wax ñu ko bu la neexee boo joxee réponse bi peut-être ñu yóbbu la ci jili CSB ma nga nekk rond point cité kër góor gi gaa ngi ci commentaire wax leen ñu kan moo nekk ci ginnaaw image bi jaajëfal leen am na benn euh, suñu benn internet kilifa la envoyé ñu benn image bii na xam naa xale yi duñ ko trouver ñu moom foog nga def ay recherche bu baax wan ñu image bii ñu def ni laajte fan la fan la ci senegal voilà te yan année la bu la neexee ngeen dolli ci année bi sax boo leen defee ay recherche lii moom man sama bopp il faut ma dem laajte jiwaat bu baax image bi yéeme na waaw ah, te nañ soriwul dara Sénégal la fii année yu yàgg la voilà wax leen ñu fan la euh, ngeen euh, commentaire ma jàkkaarloog seen commentaire yi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram jaajëfal leen loolu euh, ci émission bi la bokk mooy rubrique bi nga xamante ni dinañ may temps internet yi ñu interagir joxe seen ay réponses ci question yi nga xam ne d'habitude yéen a koy posé ñun tamit dañuy jël rek daal di en temps réel. waaye tamit dañuy suivre actualité yi yi gën a fës ci réseaux sociaux yi réseaux sociaux moo ni toll maa ngi doon wax léegi star yi nga xamante ni euh, grâce aux réseaux sociaux leen gën a xam euh, actuellement euh, supporter suisse bi def na buzz Khaby mi ngi def buzz fii ci Sénégal nag ñëpp a ngi gis ki nga xamante ni aussi moom docteur la ñu ngi koy invité ci média yi defal nañu ab vidéo gën a expliquer jafe-jafe yi nga xam ne dund mi ngi koy dund moom docteur Mamadou Demba Ndour moom gynécologue la waaye dafa defoon ab post ci page Facebook am post ba jur coow ba Sénégal gi yëpp di ko partagé fi ne ni mujj gi dafa créer ab hashtag respect à cet homme moom Mamadou Demba Ndour gis na média yëpp koy partagé tey tey tey ci suba d'ailleurs moo nekkoon invité Info euh, def naa ab vidéo daal di koy partagé ci format émission bi moom tamit joxe li tax mu def post bi ak surtout lan lay dund comme jafe-jafe. asalaamaaleykum man la docteur Mamadou Demba Ndour gynécologue obstétricien chef de service maternité hôpital régional du Matam. man nañu ñu sanctionné euh, sanction boo xam ne directeur hôpital bi moo ko jël ndaxte nee na dama wax lu ma warul wax pour rappel bi chef de l'État monsieur le président Macky Sall di def tournéem ñëw ci région de Matam région bi nga xam ne fa dëkk depuis six ans yóbbu fa sama bopp rien pour indi sama contribution la recherche de solution au problème de santé des population ma demal foofu sama bopp di fa def sama liggéey depuis six ans sans tambour ni trompette président di fa ñëw ma xam ne am na ay difficultés yoo xam ne ñi jot ci moom war ko wax soxla yi duñ ko ko wax ma jël sama initiative citoyenne dem ci sama page Facebook nuyu ko fa dalal ko foofu wax ci les mots en tout cas ñi euh, nga xam ne ñooy problème euh, ñun ñu nekk biir Fuuta surtout insister ci volet santé ci lettre boobu wax naa ci ne euh, lu toll ni district sanitaire de Ranérou xam ne c'est un département qui fait plus de vingt cinq fois la région de Dakar am dix sept structure de santé benn centre de santé ak seize postes de santé ñeent ambulance kese moo fa ne maax ko président ma ne ko foofu ñoom bu ñu amee jigéen buy buy bu nekk ci diggante war ñu war ko muccal dañu am difficulté yu ne pour ñu egsi ci loxo docteur yi bi ma waxee loolu ma insister ci ressources humaines yi ñëwaat ci carte sanitaire région bi ni mu dessiné woo ma ne carte sanitaire région bi mënoon na gën a ñoŋ loolu. voilà moom post bi mu defoon ci page Facebook am moo tax d'ailleurs mu def vidéo daal di partager li tax mu def post bi wax na ko euh, président de la république tournée bi mu doon def maatam Matam wax moom dong moo fa nekk gynécologue mais en plus aussi jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund foofu ci wàllu wér yaram loolu nag da ko juróol ay sanctions euh, ba mu def euh, vidéo daal di posté ñëpp daal di partagé euh, postam bi di wax ni fii la jamono toll bu njëkk ba média yi ñoo doon njëkkee information yi léegi nag ku nekk yaa yor sa média bopp juste média yi dañuy vérifier léegi lii nag li mu wax moom mën nañu wax ni ci moment bi mu ko waxee ndaxte gis naa ni léegi média yëpp a ngi koy invité ci muy gën a wax jafe-jafe yi nga xam ni ñoom waa Matam ñu ngi koy dund ci wàllu wér yaram Euh, tout ça nag mi ngi jógee ci postam bi mu defoon ci Facebook moom euh, docteur dem ba euh, Ndour di ko jaajëfal ci wóolute gi la fait que mu def vidéo daal di koy partagé ndaxte heure bi aussi heure bu baax la ndaxte mag ñeeg ndaw ñeeg ñëpp koy suivre gis naa déjà internet yaa ngi commentaire parfois nii les réseaux sociaux yi di demee saa su ne ñi ngi wax ni ñi ngi fésal ay nit di leen defal. Euh, mën nañu wax promo ci yenn ñi nga xamante ni ci yenn plateforme yi mais tamit aussi dañuy dénoncer ndaxte euh, yenn yi nit ñi yenn dëkk yi di dundu ci ay jafe-jafe réseaux sociaux yi bi ñu ñëwee dañ koy gën di fésal mais nay wér te wóor euh, am na ko jël prix Pulitzer fële ca États-Unis du journaliste ndax lan filmé bi mu filmé loon mbirum George Floyd ba prison kii defoon jëf ju ñaaw ji tëj nañ ko vingt deux ans de prison li ko waral. filmer li ñu filmer woon euh, li nga xamante ne la ñu euh, xojee woon George Floyd ba image yi def tour du monde moom euh, dem ba nduur di ko jaajëfal moom la ba nekk fële ca Tambacounda am na beneen vidéo bu ñu partagé hashtag bi sunu net la kii tamit jafe-jafe la xam naa ne tey émission bi mën nañ ko jàppee live Facebook waaw kii waa ci waaye toujours luy soxal ndaw ñi la ak sénégalais yi moom ab la bu nekk ci période yi nga xam ne ñu ngi waaj a taw mi ngi waaj taw ñoom soble si dafay yàqu waaye vidéo bi ñu def na cri de cœur la pour autorités yi dégg ko stock bu mel nii ñu góorgóoru ba def ko xoola soble bi ñu soloon saako ñu ngi commencé du yàqu te moment bi ñu toll amatul lu jënd ay saako soble pour mën ko solaat na naaj ko yàq te yàlla jaa ngi commencé taw kon doomu soble bu ci ndox laalee yaakaar naa ni dana sens couleur te dana sens aw melo monsieur président de la république tous les citoyens sénégalais geesul saw askan te xam ne am na lay jafe-jafe ñun ñaanunu la nga jox nu xaalisu financement a mën a gis njariñ war a nar a sooxe fii ci Jandeer monsieur président de la république gersunu ta nga dimbali ñu te xam ne mbir mi teg na moment bi ñu toll amunu amunu benn pexe amunu ci benn pexe ndax lii nu yor mën nu ko denc kër yi mën nu ko denc néeg yi ci àll bi rek la jaajëf bon courage peut-être autorités yi nañ ko dégg jàppale leen ñoom tamit ay ndaw lañu góorgóorlu seen bopp comme ni ñu ko gisee noonu live la ñu def lu am solo la lu ñu gis ne dina leen soxal yéen internautes yi ak yi d'ailleurs ñoom seen bopp ñoo koy partagé ak hashtag bii di sunu net mu nekk ci lii gën a solos émission bi li xew ci biir internet lépp ci internet lay xewee moo taxit initiative yeeg comme ni ñu fi jàllale lu am solo la dina soxal téléspectateurs yeeg internautes yi ay cri de cœur yi tamit ci la bokk. waaw du rek kafre bi ci la bokk mooy statut whatsapp yi li koy reetaan leeg yooyu mais parfois aussi li nga xamante ne day gën euh, ñongal euh, doxalinu askan wi tamit dina ci baax plateforme yu am solo la te lépp ay live la ci Facebook d'ailleurs euh, Facebook boobu dañ leen recommander am na ay page yu am solo yoo xamante ni ñi ngi ci góorgóorlu yu ci mel ni waa Ola la plateforme bu am solo la gis naa ni tamit euh, dañuy jox kàddu ñi nga xamante ni vraiment ay ñi ngi ci Sénégal gi di def lu am solo ay reportage yu am solo yoo xam ne ñu ngi koy def ci Facebook et puis seen statistiques yi ñoo ko wane waaw Ola di leen jaajëfal page yi ñu war a suivre la bokk na ci bi ci meneen beneen page bu mel ni lutte luttons contre euh, l'indiscipline des Sénégalais tamit page bu am solo la bari na ci ay page yoo xamante ni ay euh, initiative citoyenne la ñuy jël di ko def ngir réew mi gën a jëm kanam te à internet wala euh, réseau sociale bi di Facebook xam nañ ni ndaw ñu koy utiliser wala sénégalais yi koy utiliser bari na ëpp na ñaari millions ak lu topp euh, ci ay doomu aadama ñoo xamante ni ñu ngi ci euh, téléphone portable toujours scotché bañ na ko léegi dañuy duppee génération tête baissée waaw ndax suñu téléphone portable bi dañuy sëgg rek <laughs> mi ngi nii image bi voilà image bi dafa doy waar ah génération tête baissée la suñu téléphone portable la ñuy yor di wax rek. sa gré xale yi léegi sax nee nañ boo nekkee ci sa biiru yaay ngay commencé yor sa téléphone portable parce que suñu yaay ñi ñoom voilà ñoom madame Guèye lii la ñuy def passe temps yëpp téléphone portable la réaction yi maa ngi koy gis euh, Facebook Twitter wala Instagram wanaat leen question bi parce que gis naa internautes yi di réagir ci question bi nga xamante ni euh, posé nañ ko fi mooy bu verte bi <laughs> gis naa ay ñii naan mango la ñii naan citron wanaat leen voilà mi ngi noonu. quel mot ou expression se cache derrière cette image lii nag dafa dafa mel ni kiiwal na gars yi daal voilà commenté leen hashtag sunu net Facebook Twitter wala Instagram amaat na beneen image du jour boo xamante ni aussi euh, voilà image bu bu am solo la gis naa ni Twitter ñëpp a koy partagé rawatina ba euh, Badara Diop euh, moom mi ko njëkk a image bii nag wanaat leen ko maam Galla image yu xale yi ki jël trois voilà mi ngi nii wan leen image bu leer mu ngi noonu. ak commentaire bi lii nag moom ku ci nekk mën nga ci joxe sa commentaire ki jël pay moom mu ngay xool ki jël troisième di dund enjoy li mu jël noonu ci li mu rang bi mu jël mi ngi koy enjoy baax na de image baa ngi nii commentaire leen ci hashtag sunu net Facebook Twitter wala Instagram joxe leen ci seen xalaat Euh, yéen tamit am ngeen possibilité joxe ci seen xalaat donc leneen alerte aussi vidéo bu am solo boo xamante ne ñi ngi jëm ci ay période tabaski ñenn ñi ci ay boutique mu nekk loo xamante ni aussi euh, dina soxal euh, commerçant yi toujours nañ ci bàyyi xel mi ngi nii ay sàcc ak ay yu ni vidéo yaa ngi ci kii yi donc chaque jour ñu jàllale fi video yoo xamante ni aussi dafay doy waar te ay euh, caméra de surveillance te léegi gars yi nga xam def kat defkatu ñaawteef yi la ragalatuñu ay euh, caméra ak ay yu ci nekk donc nañuy jël matuwaay bu baax ñu gën a alerter mbirum sécurité aussi nañ ci bàyyi xel ci yenn quartier yi donc téléphone portable yi téye leen bu baax yenn yi da leen dénoncé leen ko ci réseau sociaux yi lu am solo la ndaxte saa su ne eh, dina tax eh, yeneen ñeneen ñi gën ci am nekk en sécurité aussi alerté autorités yi ñu koy gis en euh, temps réel ndaxte ñëpp a ngi connecté lu am solo la euh, lii moo nekkoon tey émission li xew ci biir internet yi bari na éléments yi mais dañuy segg rek jaajëfal leen jox leen euh, dig daje ba lundi ci beneen numéro beneen semaine incha allah Euh, li xew ci biir internet bi am ngeen possibilité réagir wax naa ko mooy seule émission boo xamante ne avant la pendant ak après donc am ngeen possibilité même bu émission bi jeexee ngeen demaat suñu plateforme Facebook live Instagram live YouTube live euh, commentaire joxe seen réponse surtout ci question yi ndaxte ci la ñuy profito daal di euh, choisir yenn ci internet yi yóbbu leen ci jili CSB ma nga nekk rond point cité kër góor moom di ko jaajëfal ci qualité gi jaajëfal yi jox leen di daje ba suba ci beneen numéro. Macky